Euh, dal leen ak jaamu dalati leen ak jaamu mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy teewlu man nañ ne nag bonne nouvelle la ñuy daal di dellu si waat rek gannaaw parti bi nga xam ne rek moom moo di ex-Pastef ci ay jafe-jafe yoo xam ne rek mën nañ ne depuis deux mille dix neuf boobu ba tey ñu ngi koy euh, daal di dundu wante kat yox yox wuñ te tamit tegg wuñ tànk benn yoon tax nag ndam di leen di dikke saa su nekk bi la yoon nag gannaaw jàpp ki nga xam ne rek moom mooy euh, Zahra moom mi nag mën nañ ne miinoon nañ ko loolu. gannaaw nag euh, tournée yi nga xam ne rek kii di président Ousmane Sonko mi ngi ko doon amal ca wàññi ko ba nekkat ñu baree bari dañ leen a daal di woon a képp ba tax sax moom mii di Ousmane Sonko dañ koo patam patamee woon gannaaw ba mu jugee foofule ca diwaanu Ziguinchor nag daal di ko yóbbu direct rek foofule ca diwaanu Ndakaaru nekkat mbir mi ni mel bari nag ay doomi aadama yoo xam ne tegoon nañ leen si loxo bokk si nag moom mii di Zahra mën nañoo jàpp que ne kat bi yoon ñu gis ne kat may nañ ko liberté provisoire nekk nag loo xam ne rek mën nañ ndam la boole koog nag beneen libération boo xam ne rek daal dinay jote génn te du kenn ku dul Mansour Cissé moom mii nag foofale ca diwaanu mbuur mën nañ ba tey bokk ci parti bii di Pastef mbir mi ni nag di ab xibaar bu nga xam ne rek daal dinañu koy yeewoon ni ki tey mu nekk rek loo xam ne lu bégloo te tamit nekk loo xam ne rek lu kontaan loola ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Pastef di leen di jaajëfal ci topp gi safoo geeg faali gi chaîne chaîne YouTube Partout TV